الله أكبر mbokk yi maa ngi leen di jot li kàddu bi sëriñ bi sëriñ baa ngi leen di nuyu di nu ndokkeel waa réew mi ak mboolem fu ab jullit nekk di ñaan suñu borom jaamu yàlla gi nga xam ne ci la nekk tey yàlla na ko suñu borom nangu te làqal na ko fañu ko soxlaa mu jox na ko muy bis boo xam ne xew-xew bi ci amoon deesul dañ mukk di ko fàttali muy xew-xew bu am diggante suñu borom tabaraka wa taala ak ab jaamam jaamam boobu di sayidina ibrahima alayhi salaam mi yàlla wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko tumma awxayna ilayka an ittabia millata ibrahima xanifan wa ma kaana min almushrikin muy jëmm joo xam ne ku bàyyi woon yàlla ak boppam la mu mel ne nag saa bu ñëwee des na ca jàng ana nu jaam bi di dunde digganteem ak boromam ak digganteem ak moroomi jaamam loolu su ñu demee ci alxuraan jii Seydina Muhammad indi danañ ko ci fekk bu ñu demee ci suuratul Anfaal ma ngi ci ña ngi tey fekk muy wax ne fattaqullah loolu la ñu ak yàlla nit ñi loolu lañu séq ak yàlla baal ko xel di ko wattandiku ci ay tereem di sàkku ngërëm ci ay digaleem ba loola weesoo itam ni ñuy dunde ak nit ñi mu daf ko ca leeral bu baax ne wa aslihu zaata baynikum seeni diggante yi nay la tax fu ngeen dégg diggante bu xaw a am ñagas ñagas tuuti na ngeen ca dox ba mel na war a mel yaar yooyu mooy am nag nit ki soog a teg tànkam ci tàmbalee jëfe ndigal suñu borom fattaqullah wa aslihu zaata baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminin bu fekkee bëgg ngeen ñu leen wooye ay jullit jéego boobu ngeen di njëkk a teg ca ba ca topp muy baal xel yàlla ko ci ay tereem sakk ndigalam ci ay sakk ngërëm ci ndigalam euh, mu mel ne dañ ko ne jullit dëgg-dëgg mooy kan mooy mu ne innamal <clears throat> alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu loolu moo feeñ lool ci jëfi Seydina Ibrahima ji nga xam ne moom la ñuy dundal tey bu dee ci suñu diggante ak nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kenn ci yéen ngëmam du mat sëkk lu dul dafa bëggal bokki jullitam ak ñi mu bokkal réew mi li bëggal boppam laa yuminu ahadukum xata yuhiba li axihi maa yuhibu li nafsi misaal na ko ci suñu jëmm yi nga xam ne ci lañuy doxe doxee mu ne diggante jullit ak moroom ja ci bëggante ak yërëmante ak ñeewantante na xool aw yaramam dana xam ne yaram wi su bëñ dee metti benn cër duutu yëngu ngir jàppale ko ci mettitam boobee su tànk dee metti noona su loxo dee metti su ay gët di metti noona muy fi mu waxee ne masalul muminin muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masalil jasad ida staka minhu udwun tadaa lahu saairu ljasad bilsahari walxumma loolu nag ki suñ jamono mën naa gën a yaatu mooy képp koo xam ne dangeen ngeen séq lu ngeen mën a gudd séddoo ngeen jàppe ko jénn jëm mu yor wenn yaram lu cay metti rek metti ci ñépp lépp lu nit yëkkati it tamuy lu mu war a yëkkati lu diine nangu ak taalibe nangu ko it ñépp ànd ak moom waaye ni ñuy boole dund suñu diggante ak suñu borom li war ci suñu diggante ak moom ak li war ci suñu diggante ak nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk na ko ci benn xadis boo xam ne dañu ko laaj yaa rasulallah aleyka sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xam ne su ko jëfee yàlla dana ma gën bëgg nit ma gën nit ñi gën ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko dangay ngay bàyyi àdduna bañ caa am soxla lu dul diir bi nga fi nekk xamoo kañ lay doon lu mu néew néew nga fexe ba teg sa tànk ci ndigal suñu borom bi su boobaa yàlla dana la bëgg waaye it nit ñi it soo bëggee ñu bëgg la da nga leen di bàyyee liñ yor te loo am nga woo leen bokk ak ñoom yaa rasulallahi jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam an saad ibni saadin saaidi fa qaal yaa rasulallahi dullani ala amalin ida amiltuhu axabani llahu wa axabani nnaas fa qaala idhab fi dunya yuxibuka allah wasad fi ma inda allahi yuxibuka nnaas waaye loolu bu ñu ko gënee tënk mu gàtt sëriñ bi nee na nañu settantal bu baax a baax xadis bi may bëgg a jàngate yóbbaale kenn ku nekk di ko nafaraka nafaraat jële nañ ci ku ñuy wax abu masud abi masud uqbat ibn amr al ansari al badri yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yi fi jëkkoon a jaar gaa yaa ngi fàttaliku ci ñoom genn kàddu goo xam ne jamono ju ne day mën a dox kàddu ga mooy nit ki su amul kersa lu ko soob na def inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati l ula ida lam tastaxi fasna ma shi loolu nag suñ ko jàngatee ci jamono ji ñu toll danañu gis ne ay waxante saa su ne day jóg ku ne di wax moroomam di ko wàññil ay weex-weexam ak ñuul ñuulam waaye suñ delloo ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu ñu tënkee bu ñu tënku ci kersa du ñu wax kenn dara te ku ñu waxee duñ ko gestu ba di ko delloo lam ñu wax sëriñ bi ne nañ ko baal xel bu baax a baax te yóbbuloo ko yonent bi daal nee na koo xam ne kersa di yax na ci moom lu ko neex na def yàlla nu ci yàlla musal sëriñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala jaamu yàlla gii ñu ci def tey mu nangu ko bu ko nangoo nañu ko ko ful te lu mu wax dana ko def inna la nudiu ajra man ahsana amala dencal nu ko te dañ bañ cee gis suñu bopp ba bañ koy soxla di ndokkeel ñëpp tey balu xaq ñépp tey baal xaq ñëpp di ñaan sëriñ bi nee na kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ak ñeneen ci digg bi ak ñeneen ci ginnaaw ñëpp ak ñu topp ci ñoom ak ñañ topp yàlla may leen fan yu gudd te dëgëral seeni taxawaay di ñaan yàlla sunu moro moroomi jaam yi nga xam ne ñoo fi bokkoon ak ñoom nekk daaw te fekke wuñ ko ren yàlla leen yàlla yërëm sëriñ bi it nee mi ngi leen di jaale bu baax a baax a baax kenn ci njaboot gi nga xam ne ku amoon taxawaale ci dëkk bi te bàyyi koo fi fan yi rek mu ngi ñaan ñëpp ñaanal ko kàddu yooyu la sëriñ bi waxoon ne nañu ko jottali lu ci neex a dégg daal wala mu yomb a jàpp maa ko nettalee nam ma ko waxee woon lu ca mel ne ne ci man mii la di ko ñaanal moom itam suñu borom bàyyil na ko fi